Euh, voilà encourager, ko encourager jigéen ñi siy yëngu ensuite benen côté bi moy coopérative bi ñun dañu créer benn coopérative bo xamni ni liggéeyam mooy jàppale kër yi amul courant pour que ñu mën am ay kit solaire yu leen mën may ñomit ñu am lampe seen kër ku tal nga taal voilà lolu aussi bokk na ci programme coopérative Sénégal ak ci sous-région Afrique bi ñun rek ñoo fi am coopérative buy liggéey si côté boobu ñun donc amul ñaar alors loolu la aussi bëggoon nañ ko topp gën ko yëgaa gën ko profité si daje bi pour gën ko yëgle voilà gën a soññe ñi si nekk gën ñu yëgle pour que suñu nit ñi si biir gox yi suñu delloo ñu xam ne lii bunt la bu bees bu leen mën a yombalal courant alors loolu euh, bokkoon na si ko ñetteel ba nag mooy ñun dañu ànd ak président Macky Sall di ko jàppale

dëkk bi day kale voilà alors loolu moo tax ñu ne nañ si taxaw taxaw boo xam ni taxaw bu mat lay doon ba ñu amaat majorité bu mën a may président chantier yi muy mottali ñu mottali ko liggéey ko maintenant nag suñ ñëwee boor a tànnaat nag yeesalaat en 2024 écoute ñu daal di daal di daal di daal di def élection non et réew mi def ay choix li daal moo doon li nga xam ni moo sabab daje bi xam nga nit ñi dañuy fàtte ni ñun yàlla daf ñu may ñu nekk réewu jàmm léegi or nit dañuy fàtte dafa am ñaari alal yoo xam ni moo jiitu lépp wala fi dañuy wax ni soxla su dee ñaar feebar da si bokkul li feebar doon loraange si doomu aadama noonu la ñàkk jàmm doone loraange si réew parce que fitna moom su xasee yëpp dugg ba réew rek dara ni ñu talatuñ dara mucc la ñuy tal mucc talatoo liggéey talatoo jàng talatoo leneen noo defee ba mucc ngay tal réew mu tas loolu or dañu seetlu ni réew yi li koy tas si àddina bi yëpp mooy seetlu nañ ni su fekkee dafa am xeetu alal yu fa gane rek dafa am ay doole yu ñëw am ñu ñuy xam ba si biir réew mi pour tas réew ma ñëw jël njëriñ la yóbbu alors seetlu nañ ni ay depuis benn jamono gis nañ ay xeetu politiciens yu bees yoo xam ni dañ fi yëngal li gën a yées si politique mooy waxu xeet waxu waxu waat waaso waxu diine ak waxu tarixa réew moo bëgg mu tas tasar ba kenn dootu ko mën a liggéey sàgganaal ba coowal xeet coowal diine ak coowal xalifa dugg fa parce que réew amul réew bu ko attan loolu moo tax euh, ñu jàppoon ni aussi war nañu wax ak nit ñi surtout yenn xale yi nga xam ni topp nañu coow li ba mel ni am na loolu taxoon aussi ñu ni nañu woo suñu mag ñi woo suñu jigéen ñi woo suñu rakk yi pour que ñëpp xel yi dellu si waat waxtaan ak xale yi suñu démocratie bi si biir suñ ko yàqee rek su yeboo ñu xam ne fa ñuy xam xamuñu ko